jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97 point 5 ñu dellu am mbégte ci euh, saa su nekk di ànd ak yéen ci seen émission pencum réew mi samdi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck tey nag euh, ñu dellu am mbégte dalal ci Moussa Sow mi nga xam ne moom mooy coordonnateur national euh, de la COJER maanaam ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci APR. moom moo leen euh, jiite moom la ñu invité tey Adama Diallo moo nekk ci wàllu euh, technique bi kon mbokk yi ñu ànd ak euh, suñu gan Moussa ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay sëñ Abdou di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy déglu jamono ji ci réew mi FM. ñu commencé li nga xamante ni mooy waxtaan wi ak seen parti bi nga xamante ni moom mooy APR li nga xamante ni moo fi gën a fës fan yii yëpp muy Moustapha Diakhaté mi nga xamante ni nekkoon na ay jamono ministre conseiller. Euh, nekkoon tamit ay jamono euh, président euh, groupe parlementaire benn bokk yaakaar ñu gis ne am na ay weer wala ay ayubés yu bari yoo xam ne doon na génn di wax loo xamante ni daal ñu bari doon ñu wax dañ doon wax ne déggowul ak waa APR gisin ñu bari tamit ànduñu ci woon fan yi nag dañoo jël dogal yéen da ngeen jël dogal seen commission discipline bi dàq ko ci parti boobu di APR yow yaa jiite ndaw ñi lan moo ci sa xalaat. waaye sama xalaat euh, mooy nekk euh, man jàpp nañ ne ñun de en tout cas jeunesse républicain président de la république képp koo xam ne moo ngi koy attaqué ñun dañ lay dañ lay attaqué ba mu ba fu mu yam neex Moustapha jaxate nag bon dafa considéré boppam comme benn révolutionnaire boo xamante ne lu ko neex wax lu ko neex def te or parti dafa nekk organisation bu fekkente ne euh, en tout cas déggoowoo ak ñi nekk ci biir parti bu fekkente ne bëggatoo nekk ci biir parti bi mieux nga dem defar sa langue bopp nga nga nga dem nga génn parti bi moo gën nga nekk ci biir parti bi ba pare di attaquer le président de la république mais également di di di di buntu xatal wala di di di parce que am na looy def rek ci mais mal à l'aise tout le parti alors que président de la république dafa nekk nit koo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a jàppale bu fekkente ne nag Moustapha Diakhaté moo ngi koy attaqué ñun duñ ko rafetlu benn yoon te dañuy dal ci kawam bu baax a baax képp ku attaqué président de la république na na jàpp ne ñun danañ la attaqué wala avant ngay jot président de la république ci ñun ngay jaar d'abord balaa nga koy jot. Euh, Moustapha Diakhaté li mu doon wax ay attaque la wala nit ku doon wax xalaatam la. waaw ñëpp ràññee nañ ko en tout cas ci ci ay attaque du du bërki démb rek moo ci moo ci jiitu moom dafa comme li ma la wax sànq dafa jàppee boppam benn révolutionnaire à chaque fois lu ko neex lay wax. parti politique nag bindoowul noonu bu fekkente ne bokk nañ parti politique ñuy xalaatandoo di def naka nag naka di di di di xalaat naka la ñuy def pour jël pouvoir wala di xalaat naka la ñuy def pour garder pouvoir eh, di xalaat naka la def pour véritablement eh, développer réew mi jàpp naa ne am na loo xam ne xaju ci am na loo xam ne day day day nasaxal su li ñuy def ci parti bi pour que véritablement sénégalais yi gis ci seen bopp ñoom ñëpp waa léegi euh, yow sànq da nga wax ne Moustapha Diakhaté dafa jàppe boppam ab euh, koo xamante ni ab euh, révolutionnaire lu mu neex wax mais pourtant yàgg na ci parti bi te doxalin wi ñu gis ci moom doxalee wutoon noonu. est-ce que du dafa dem ba gis lu ko naqari. xam nga lan la du lenn lu dul responsabilité yi mu amoon amatu ko privilège yi mu amoon amatu ko aduna nag moo tëddee noonu. tey da ngay am suba nga ñàkk président de la république nag sénégalais yëpp la fi nekkal bu fi nekkalee sénégalais yëpp tey bu la joxee ab privilège da nga war a sant yàlla bu demee ba benn instant sa privilège dañ waratoo nekk fi naan da ngay attaquer président la république loolu manque de reconnaissance man laa ko tuddee manque de reconnaissance boobu nag du ñu bàyyi ku mel ne Moustapha Diakhaté di ñu yàqal sama suñu parti di yàqal sénégalais yëpp parce que bu attaquer président de la jàpp naa ne sénégalais lay attaquer te problème bi du foofu tey ji président de la république dafa woo sénégalais yëpp autour de son projet autour li nga xamante ne politique bi muy développé pour que sunum réew naat bi la grande question mhm. c'est aujourd'hui Sénégal fan la ko président de la république fekk mhm. ak fan la ko yóbbu xam nga euh, croissance euh, fi ko président de la république yóbbu ñëpp xam nañ ne liggéey moo koy def ñëpp xam nañ ne également li ñu gis ci réew mi ci avancement secteur boo gis président de la République def na fa ay jéego yoo xam ne day euh, multiplier li nga xamante ne fekk nañ ko fa loolu liggéey moo ko moo ko def te président de la République liggéey boobu moo tax tey véritablement ñun ñu ne question bi euh, du politique question bi warul nekk fi naan ci biir parti bi naan ay refondation loolu c'est des détails par rapport aux enjeux euh, économiques aux enjeux qui appellent tous les Sénégalais à s'unir autour du président de la République pour le développement justement Sénégal d'accord euh, Moussa Sow dinañ dikk ci euh, li nga wax noonu mais tamit tey euh, sànq wax nga ne Moustapha Diakhaté privilège yi la ñu dindi ci moom mais bi ñu koy dàq nekkoon na ministre conseiller quand même. waaw nekkoon na ministre conseiller mais assemblée président groupe parlementaire la njëkkoon a nekk. te boobu c'était pas évident. parce que président de la bàyyi woon na fi ñu bëri ñoo xamante ne ñoo gënoon a apte Moustapha Diakhaté pour nekk président groupe parlementaire mais président joxul ñoo ñëpp moom la jox loolu rek. loolu rek bu fekkente ne Moustapha Diakhaté gor la loolu rek waroon na tax tey jii moom ci boppam mu téye président de la république comme ni ko kenn téewewul donc ñun mënuñu li ni day yàq sax gone yi day yàq xale yi ñu jox la tey responsabilité suba ñu dindi ndomba tànk boobu rek nga mer nekk fi di attaqué te ñëpp xam nañ ne say attaques yi fonde woo ko ci dara ci lenn amul fenn foo xam ne wéer nga ko fa ay refondation du partie alors que en deux 2012 ou 2013 2014 moo ngi woon ci biir waxul dara mu xaar ba tey naan ay refondation mais dama jàpp ne peut-être nit koo xamante ne dafa toll fi nga xamante ne eh, véritablement euh, dafa dafa bëggoon a génn booy xool attaquam yépp moom dafa bëgg a génn yow kay boo bëggee génn yaxayti demal nga demal nga créer sa yëfi bopp te nga bàyyi ñu ci jàmm ak salaam. est-ce que yëngal. parti APR e su génnee bu demee def na refondation bi mu wax. déedéet Moustapha Diakhaté mënul yëngal parti APR e munul yëngal benn parti parce que tey jii Moustapha Diakhaté mënul sax dajale juróomi baaraamam amul ñetti nit ci ginnaawam donc kooku politique nag mobilisation la ñu wax. amul base amul benn base politique fan nga xamee Moustapha Diakhaté ban ban ban département wala ban commune ah man de xaw ma ku xam nag na ma ko wax donc Moustapha Diakhaté mënul yëngal euh, alliance pour la république mënul yëngal parti bi. jeune ne parle même pas du président de la république. mais mais euh, am na ñu bari doon nañ dox tànk jàmm digganteem ak président de la république te ñu bari tamit gisoon nañ ne ku jege woon couple présidentiel la lan nga jàpp ne moo ko yàq. waaw comme li ma la wax rek xam nga ñoom sax dañ parfois dañuy rus parce que nit koo xam ne dafa nekk seen xarit nekk seen seen ginnaaw jékki-jékki di leen attaquer injustement xam nga boo ko laajee tey lu tax ngay attaquer président de la république lu tax ngay attaquer. Eh, eh, gouvernement bi lu tax ngay attaquer parti bi du la wax dara du la wax dara lu dul ay wooy parti bi dafa désorganisé parti boo xam ne dafa ñëw trois ans d'opposition mu jël pouvoir téye ko depuis lors am coalition bu toll ne benn Bokk Yaakaar garder ko ba nëgëni ba 2019 nga ne c'est un petit parti c'est un fans club nangam ak nangam xam nga loolu tegu tegu ko ci yoon bu fekkante ne fans club la APR du jël pouvoir bu dee APR fans club la du mën a garder coalition Benno Bokk Yaakaar ba 2019 huit ans première fois dans l'histoire du Sénégal waaw mais grâce au leadership du président Macky Sall euh, jërëjëf euh, Moussa Sow yow ñu fàttali yow yaay euh, coordonnateur national bu COJER yaa jiita ndaw ñi nga xamante ne ñoo bokk ci APR yow lañu invité tey ci réew mi FM ci émission pencum réew mi léegi Moustapha Diakhaté li nga xamante ni ma ngi koy wax ci mbedd mi ak ci média bi est-ce que amoon na possibilité euh, wax ko wax ko njiitu réew mi ci loo xamante ni ñoom ñaar lay dox est-ce que amoon na possibilité boobu. amoon na possibilité chaque jour ngeen gis ko ci ci ginnaaw président de la république chaque jour réunion secrétariat exécutif wala réunion directoire à chaque fois day ñëw. Euh, organisation dafa bindoo noo xamante ne à chaque fois dañ lay may ay plage de discussion à chaque fois dañ lay may ay cadre yoo xamante ne mën nga xelal président de la république te Mademba du ko yëg Massamba du ko yëg mais malheureusement man dama jàpp ne daa bëggoon a génn kese am na ci APR am na ci APR Dembo Ndiaye gi rek lañ jógee secrétariat exécutif national doon na ko fekkee outil à la possibilité de voir le président de la république nga wax ko li nga xam ne daan na ko fekkee chaque fois ngeen gis ko euh, directoire muy wax te ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ ne président li mu ko mayoon mooy ko woon ñu bëri loolu dafa ruslu sax dafa ruslu président may la confiance bu doy ne à chaque fois boo ko bëggee gis gis ko ngay dem di ko attaqué ci mbedd yi. waaw mais mais mais Moussa est-ce que seen secrétariat euh, exécutif national boobu est-ce que am na démocratie interne bi yéen bu ngeen fa dajee yow ci nga bokk est-ce que dinañ leen may kenn ku nekk wax xalaatam ci parti bi ni mu ko yëgee. ak am démocratie sax ku ci nekk am nga liberté wax. il suffit nga yëkkati sa baaraam ñu jox la kàddu nga wax lu la neex nga wax lu la neex loo xam ne day jëmal parti bi kanam ñëpp te président day toog déglu ñëpp tout le monde. ku ah bëgg wax day wax. amul ay ñaari nit ñooy jël parole trois personnes wala quatre personnes non ku bëgg a jël parole da koy jël man xam naa li ma lay wax te li ma lay wax ni euh, véritablement c'est vérifié. C'est vérifié. Président de la République, c'est un démocrate. Président de la République, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, non seulement pour le pays, mais également pour tous les Sénégalais. léegi mais euh, seen parti bi mustapha Diakhaté ne na amul commission de discipline lan ngay tontu ci loolu. am na commission de discipline dirigée par Abdoulaye Badji am na bu baax baax commission de discipline nañu wax ne kay depuis biñ ko installé léegi gisuñu cas bu mel ne moom ba tax ñu koy sanctionné. parce que commission de discipline nag bu fekkente ne gisuñu en Moustapha Diakhaté kenn du sentir ne commission de discipline am na comme que Moustapha Diakhaté nag euh, dafa dafa jàppoon ne amul commission de discipline xam na ne tey jii la commission de discipline existe bel bien parce que dàq nañ ko ci parti bi. mais amoon na. amoon na bu baax depuis les textes. Hmm. boo xoolee réglement intérieur APR. waaw statut yooyu yëpp c'est prévu. d'accord mais mais Moussa. Euh, yéen lan moo tax wala commission discipline bi lan moo tax euh, woowu leen Moustapha Diakhaté déglu ko ba pare doo ko dàq. waaw lépp loo gis. lépp loo gis booy xool ci xam nga urgence dafa am. Mhm. président de la république moom ci boppam moom mën a joxe. ndogal ne dàq nañ nit ci parti bi moom biñ ko dàqee ba pare ci commission discipline yóbbul nañ ko sa euh, sa sa lettre d'exclusion. yóbbul nañ ko notifié nañ ko ne dàq nañ la ci parti bi loolu respect foofu la mën a yem c'est ce que prévoit. léegi damaa dégg euh, kenn ku bokk ci yéen ku bokk ci euh, commission di discipline bi euh, Abdou Mbow wax ne Moustapha Diakhaté buy tudd APR ci courant bi muy taxawal ëllëg mën nga nga see topp ci mbiru yoon. mën nañ ko see topp bu baax moom kay buy def mbiram bu wóoloo boppam. na jël beneen tur wala mu def leneen mais nag kii nii mënuñoo tiital wax dëgg yàlla mais Moussa nag euh, Moustapha Diakhaté am na sañ-sañ taxawal mouvement ci biir parti APR non amu amul sañ-sañ boobu parce que c'est pas prévu mais am na yenn mouvement yu fi nekk courant c'est pas prévu am na moom nee na taxawulu courant nee na mouvement la taxawal te biir parti APR am na ay mouvement jàppale Macky Macky moo ñu ñor dolli Macky nangam loolu amul sens ngay attaqué Macky Sall nga ne courant euh, mouvement ngay def pour jàppale Macky Sall lan amul sens te sénégalais yi xam na ne amul sens. man jàpp naa ne man bu may jël samay responsabilité yàlla xam na ne bu ma wóoloo sama doole. Mhm. da génn ci parti bi dem def lu la neex. mais nee moom dàqu leen ko te ba léegi nii moom nee na ma ngi ci biir parti bi ma koy contesté. dina génn de. parce que koo xam ne moom baaxul soxlawuñ ko ci parti bi wax dëgg yàlla. xanaa tey ngeen ko soxlawut. ah moom moo moom moo exclure boppam di presque moom moo bëggoon ñu exclure que. te Moustapha Diakhaté il ne pèse absolument rien du tout bu génnee ci parti bi ñun alhamdulilah la ñuy wax en tout cas ñun jeunes yi parce que mosuñoo inspiré. Mhm. mosuñoo euh, jox en tout cas euh, il n'inspire pas confiance depuis le début. est-ce que tamit tey. te may fàttali. Mhm. démissionné woon na fi APR. ah bon en 2012. 2012 2012 démission na ne fi APR ne bokkatul APR démissionné na lépp bind euh, démission am demande xaw ma lan démission am. bindoon na ko ba déposé ko boobu président Macky Sall moo nekk président. bu baax boobu c'était en 2012. léegi nag man yëguma en tout cas fi mu ñëwaatee ñu dugalaat ko ci parti bi yëguma ko. Mm-hmm. donc c'est quelqu'un boo xam ne munoo xam ne ndax moo ngi ci parti bi munoo xam ne newul ci parti bi il est versatile c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas euh, d'importance pour nous. d'accord mais euh, am na ñuy wax ne. Euh, ba léegi Moustapha Diakhaté am na place si parti bi ndax yow est-ce que ànd nga tamit ci ay médiation pour mu dellu si. ànduma ci amul benn place ci ci ci ci parti bi. àndoo si médiation. ànduma ci parce que dafa yàgg def yu mel nii nit ñi di ko muñal président nag ku bëri yërmande la ku mën a muñ la dafa muñ a muñ a muñ ba boolu muñaayam fees actuellement ñun mënuñu accepter kuy fragiliser parti bi. parti bi dafa am fu mu toll. ñun du ñu accepter quelqu'un boo xamante ne que ti soit à l'intérieur du parti qu'à l'extérieur du parti kuy fragiliser partie bi ak le président Macky Sall ñun duñu mës a ànd ak yow te duñu maslaa sax ak yow. waaw mais da ngay génn dem doxi say. mais Moussa mën nañoo wax ne euh, kilifa nga jamono ji ci parti APR ndax yow yaa jiite euh, ndaw ñi ba pare tamit membre nga ci euh, secrétariat exécutif national bi ndax say kàddu nekkutoon fexe rassembler fexe dajaloo nga ne yow Moustapha Diakhaté soxlawu leen ko. soxlawuñ ko ñun ndaw ñi lañ lañ gën a soxla nëgë ni soxlawuñ ko président de la république ñi nañ ko ci parti bi ñun daal dàq nañ ko. soxlaatuñ ko fenn. parce que ah. day yàq parti day féewalee nit ñi bu ñëwee it ci ay division lay nekk. ci ay complot lay nekk ñun soxla wuñ lool ñun kuy dooleel président Macky Sall soxla soxla koo xam ne day ñëwaat nekk une une patate pourrie dans le sac soxla lool te duñu dox it ay négociation loolu mooy lan léegi est-ce que jàppoo ne courant bi mu taxawal euh, ànd ànd taxawu APR est-ce que jàppoo ne dina am euh, ci biir APR ñoo xam ne euh, danañu génn dem fekki ko moo xam ay cadre la ñu doon moo xam ay ndaw la ñu doon bon nañ jël seen responsabilité te jàpp ma ne sax kenn dana ko fekk ci ay ñi nekk APR ñi gëm président de la république kenn du ko ci fekk. parce que moom effectivement Moustapha Diakhaté xam na ne li muy def nii c'est c'est sans aucune conviction c'est voué à l'échec bañ na ko ba mënul organiser conférence de presse parce que mënul mobiliser kenn conférence de presse Facebook la ko defee. ne taxaw xaw ma lan APR nangam nangam. kon yéen daal fulaalu leen li mu président de la république je pense que moo ngi taxaw effectivement moo ngi taxaw APR bu baax a baax a baax a baax. d'accord léegi euh, ñi njort ne Moustapha Diakhaté dafa am benn candidat ci biir APR bu nëbbu ñiy njort loolu yow sa xalaat. waaye bu fekkee bu fekkente ne am na am na ñuy njort loolu nee nañ. mais man jàpp naa ne ñooñu noonu dañoo amul fit amuñu fulla amul amuñu fayda bu fekkente ne loolu la nañu génn jël seen responsabilité jël seen destin à deux mains ñu génn jàmbaarloog ñun jàmbaarloog euh, président de la bu fekkente ne euh, loolu lañ bëgg. mais jël ñeneen di leen euh, di leen di leen pousse à la sortie pour que ñoom ñu jàmbaarloog pouvoir bi fi nekk loolu loolu vraiment c'est pas ambitieux du tout man jàpp naa ne ko gëm dëgg-dëgg lu muy def day génn boo gëmul président de la république mais génnal président wax na ko sax wax na ko ci interview am yu baree baree bari bu fekkente ne gëmat gëmatul leen gëmatul parti bi képp koo xamante ne bëggatul nekk ci biir na génn teewul kenn na génn bu génnee à partir de ce moment ñun danañ jàmbaarloo moom politique la. d'accord du leneen. léegi euh, ñi ñuy wax ne dafa am ñoo xamante ni ñoo ngi ànd ak euh, Macky Sall ba pare dañu am ay ambition présidentielle. ñu siy tudd lu baree baree baree euh, bari Amadou Ba ak euh, ay Makhtar Cissé ñu leen siy faral di tudd ndax yow euh, njortu nga ne am na ñu ànd ak Macky Sall ñoo xam ne am nañu ay ambition cachée. loolu mën naa am loolu politique la mais man jàpp naa ni jusqu'à la preuve du contraire Amadou Ba ak Makhtar Cissé ak ñoom ñëpp ñoo ngi jàppale président de la République bu ñu demee nag ba jàpp ñoom ci seen wàllu boobu ñu wonee ne jàpp lu jàpp jàppale wuñu président de la République ñu mën cee àddu su boobaa. mais Amadou Ba woo euh, Makhtar Cissé woo Mademba woo Massamba woo jàpp naa ne ñi nekk ci parti bi ñoo ngi jàppale président de la république te maa ngi leen ci encourager bu baax ñu jàppale bu baax a baax continuer di jàppale président de la république parce que moom kese moo fi ne moom dong moo fi ne. Euh, li nga xamante ni mooy seen euh, ndaje mi ngeen def démb ci ajjuma ji si secrétariat exécutif national bi est-ce que officialisé ngeen ci dàq Moustapha Diakhaté bu baax dañ ko confirmer effectivement l'exclusion euh, du président Moustapha Diakhaté. kon c'est fini fi mu ne nii. c'est fini julli tubaab ñëpp ànd nañ ci. léegi su waxatee ci parti bi. dootul mënatul waxati ci ci turu parti bi. parce que amu ci benn ndomb tànk actuellement. xanaa peut-être euh, ñan ñoo koy déglu. kenn du ko gëm. kenn du ko déglu. Moustapha Diakhaté théâtre lay def. kon jàpp nga ne daal yàqalu leen dara yéen. ñu dara. koo xam ne nee la koo xam ne mënul dajale juróomi nit pour def point de presse wala conférence de presse. kooku mën naa jaaxal parti bu doy ne APR. mënul nekk ñun jeunes yi kenn koo ci jël mën na dajale lu mu bon bon bon cent personne ci biir jeunesse bi. moom a ko dajale ñun ñooy moromam mais président de la république du moromam waaye. jërëjëf euh, Moussa Sow euh, ñu fàttali mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM Moussa Sow moom mooy coordonnateur national bu COJER maanaam moom moo jiite euh, parti bi nga xamante ni mooy COJER ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci boobule parti moom la ñu invité tey ci li nga xamante ni tey moom mooy émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h. mais Moussa yaa ngi wax sànq ne président moo fi nekk mais bi njort nañ ne moom mooy mandaam mandaam bu mujj ak yow li mu wax ne du wax day defaat beneen mandat ak du def beneen mandat du ci wax waaw du ci wax déet tontu boobu ndax yow euh, tontu boo ànd la ak lan nan ko ko gisee. ah Abdou a man pour man dépassé nañ question bi de président de la république ne woon na. question bi daal dépassé nañ ko moom wax na ci. te jàpp naa ne li mu wax loolu ñun ca lañ ànd. ca lañ ànd bu baax a baax à 1000 pour cent. newuñu tollooguñu foofu ñoo ngi ko fal yàggul moo ngi liggéey di def Sénégal di defal Sénégal yi li nga xamante ne moom lañ ko laaj. mais wax dëgg yàlla nañ xaar ba euh, ba waxtu ba jot ñu wax ci. actuellement dara dara soxaluñu lu dul développement du Sénégal dara soxaluñu lu dul. protéger ak gunge président de la république Macky Sall. d'accord mais sànq yaa ngi doon wax que ne secteur yu bëree bëri président ma nga fay defi jéego mais gis nañ euh, ci li nga xamante ni mooy conseil des ministre bi génn kese wax na ci mbirum njàng meeg njàngale mi ñëpp gis ne waa G7 ñoo ngi ci ay grève yu ay grève yu méttee métti te ba léegi ni accords yi ñu signé woon ak président euh, mataloo guñ ko. man dama jàpp ne gis nga enseignement euh, enseignement bi ak ak loo fa di def ci ay jéego ci ay effort c'est de l'éternel recommencement ñoo xam ne dañuy réclamer ñu augmenter leen seen salaire ñoo xam ne dañuy réclamer ay indemnité de logement loolu yëpp président de la république def na ko ñoo xam ne tey boo retraité nga nekkoon enseignant par exemple dans le supérieur 80 pour cent sa salaire lañ lay versé boo retraité loolu amul fenn amul ci benn réew mais ba léegi ñoo ngi continuer seen grève yi c'est-à-dire il faut qu'il soit sérieux également ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko war a bokk tabaxandoo mais à chaque fois grève yoo xam ne amul bopp amul genn c'est pas bien c'est pas encourageant il faut que gars yi xam ne réew mi du président kese kese kese kese moo koy tabax mais ñëpp la doomi réew mi ñëpp la yow boo nekkee euh, enseignant ci wàll wi nga ne yaa ngi bay sa waar mais yaxayti est-ce que euh, man je me dis que lu ñu mënti di def est-ce que danañ assister à une année boo xam ne sans grève la man je demande parce que li président de la république def dafa bari partout nag enseignement boobu da koo révolutionné da koo révolutionné mais ba léegi ñoo ngi ay préavis de grève yëf yu ñàkk fu la yooyu nañ ñu bàyyi. Ah, euh, mais mussa ba léegi nii euh, ginnaaw njàng meeg njàngale mii mbirum courant bi nga xamante ni dañu koy yokk collectif ñoo lànk ñoo bañ jamono ji ñoo ngi euh, tasaare ay flyers samedi bu jot yow lan nga ko gisee. waaw ñoo ñooñu ñëpp xam nañ ne vraiment euh, président de la république li mu def ci wàllum courant bi wax dëgg yàlla sénégalais yi xam nañ ko bu baax a baax bu fekkente ne nag foofu lañ duut seen baaraam foofu dama leen di wax ne foofu baaxul. lu tax baaxul. baaxul parce que sénégalais yi xam nañ ne euh, indépendance ba 2012 500 mégawatts la fi président Macky Sall fekk indépendance ba 2012 500 mégawatts la ñu amoon comme capacité. énergétique léegi ma ngi si fan. léegi moo ngi ci 1200 c'est extraordinaire. mais teewul courant bi cher en 2011 teewul courant bi cher na. en 2011 fekkee nañ ko ñun ñëpp 950 heures de coupure lañ doon assister aujourd'hui on en est à combien. on en est à moins de 24 heures pratiquement de coupure de courant. en 2011 ñëpp xam nañ li fi xewoon donc tey jii bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy distribuer ay flyers ay prospectus bu ñuy distribuer ay affichettes dañ cee war a def jéego yi nga xamante ne président de la république def na ko. wante waruñu fi nekk naan yokk nañ. courant beeg nangam ak nangam. ñun defar nañ ay affichettes. defar nañ ay prospectus defar nañ ay tract yoo xamante ne li président de la république def lañ ci bind. di ko séddale. di ko séddale di ko jox sénégalais yi. commencé ngeen ko séddale. commencé nañ ko boo duggee ci whatsapp bi. waaw yaa ngi partout. mais yéen a ngi koy séddale mais yéen bu séddale police du leen da bàyyi ngeen séddale ko nu mu leen neexee ñoom bu ñu koy séddale police di leen bu ndoxataal. ah déet bul waxati loolu kat. bul wax di loolu. lu tax barke démb dañoo yendoo séddale. seeni seeni prospect ci kenn teewu leen. mais police da wax ne leen bu leen dajaloo. bu njëkk ba dañ leen a jàppoon. leen jàppoon mais dama lay benn affaire dafa am ay information yoo xam ne yow amoo ko man aw ma ko keneen amu ko un observateur lambda mënu ko am intérieur a ko am ak ñi nga xam ne ñoom ñu la ñuy dénk kaaraangi réew mi bu fekkente ne gis nañ euh, comment dirais suspecté nañ benn affaire ci dajaloo gone yooyu noonu mais alaakulli il faut ñu réagir tuddee ay gone parce que ay gone lañ parce que bu ñu nekkul woon ay gone duñ nekk ci ñàkk fulla yi président la def ay jéego yoo xamante ne ñëpp mën nañ ko gis ñëpp mën nañ ko làmb ñu nekk fi naan ay président defu fi dara courant bi dafa chair nangam ak nangam ñii bokkuñu ñi nga xamante ne ñoo war a tabax réew mi ëllëg bokk ñu ci buñ ci bokkoon ils ne seront de des nihilistes ay gone de rien di tout lañ lu ñu mënti di def dañuy naan baaxul je défie léegi mais Moussa euh, ñun ñëpp d'accord nañ ne Euh, coupure courant yi bëri woon na 2011 jàpp 2012 bi président Macky Sall dikkee ba léegi sénégalais yu bëri d' accord nañ ñuy déglu kane coupure courant wàññeeku na bu baax a baax ñëpp d' accord nañ ci. léegi nag waaw léegi nag mais yokk courant bii ngeen yokk courant est ce que Macky Sall mënutoon a éviter loolu. non c' est yokk courant bi il faut ngeen comprendre benn affaire. yokkute bi laalul parti bi gën a bari ci population bi président de la République bi mu ñëwee lan la wax équité sociale équité territoriale di dimbale néew di doole yi au niveau territorial aussi moo ngi defaraat mbir yi pour que ñëpp tolloo ñëpp tolloo ay droit ñëpp tolloo ay euh, comment dirais ay li nga xamante ne mën nañ ko defal seen bopp bi mu ñëwee def CMU couverture maladie universelle pour néew di doole yi la courant bi aussi li tax ñu ajusté ci tuuti xam nga lu tax tey ji dollar bi fluctué na baril pétrole bi xaw na yokk tuuti. ñun produire guñu pétrole ba léegi. am nañ yaakaar ne deux mille vingt deux deux mille vingt trois danañ produir pétrole bu doy ak gaz mais comme que amaguñ ko on sera obligé de suivre la dynamique mondiale. dynamique mondial bi mooy tey dollar bi fluctué na. c'est à partir du dollar la ñuy jëndee pétrole. bari pétrole dollar bi bu fluctué lee xaw a yokk tuuti il faut mu répercuter ci suñu réew mais heureusement bi ko président de la république comprendre mu xaaj population bi ñu ci gën a bari ñi nga xam ne seeni loxo jotul seen ginnaaw laalu leen kenn ci ñoom du duñ la augmenter 15 ñenn ñi ñu augmenter mooy ñi nga xamante ne am nañ as tuut il faut qu'on soit solidaire également. ñooñu nu ñu koy xamee ne am na ñu amee tur lañ koy yokkal nu ñu koy xamee. mais xam nañ ko courant bi ñan ñoo koy fay euh, en en masse pratiquement les entreprises les multinationales ñi nga xamante ne ay entreprises lañ ñi nga xamante ne ñoo ngi fii di fayee ko ay ay ay ay fonctionnaires lañ. sont dans le privé. ñetti dërëm yi ñu ciy yokk wala ñeenti dërëm. mais loolu je pense que pour tabax suñu réew pour tabax suñu réew. war nañu koo jaral. d'accord mais Moussa euh, ñiy wax ne Sénégal dafa amul xaalis. ñuy wax loolu lan moo ci sa tontu. c'est faux Sénégal am na xaalis xam nga lu tax. Euh, barke Dembo Ndiaye rek la ministre des finance génn na wax. Sénégal am na xaalis te président de la république déplacement am yi à l'étranger yooyu yëpp pour wut nan la ñuy amee ay financement stade olympique fii ci jam Diamniadio léegi mu démarré. février bi day démarré te 17 mois lay def pare. mais Moussa Sénégal bu amul woon xaalis. accord yooyu noonu naa nga mën duñ ko signee te dama lay wax benn mbir. banque mondiale FMI. duñ suñu xarit de duñu xaritu benn réew bu ñu xam ne xamee ne réew mi duñu liggéey liggéeyuñu jëmuñ ci kanam defuñu ay ay ay effort uh-huh. defuñu ay jéego góor wuñu yàlla xam na ne du ñu jàppale. mais boobook léegi gis nañ ne banque mondiale uh-huh. muy FMI ñoo ngi ñuy jàppale bu baax a baax. ak ñeneen yeneen i bailleurs bu ñu xamoon nag vraiment defuñu góorgóorlu wuñu dóoruñu fayuwuñu yàlla xam du ñu jàppale fi ñu fekk lañ ñuy bàyyi. il faut que ça soit clair. léegi euh, député Mamadou Lamine euh, Diallo euh, Mamadou Lamine Diallo bu tekki nee na banque mondiale ak FMI ñoo nekk ci ginnaaw Macky Sall xoj ko di ko yokkaloo njëg yi. amul loolu loolu amul sens Mamadou Lamine Diallo moom man xaw ma économiste lañ man xaw ma ay ay ay ay opposant lañ à vie. man xaw ma lan lañ doon daal. man musuma musuma gis ñu wax lu baax. muy Mamadou Lamine Diallo muy keneen ka Decroix woo. ñooñu ils sont dépassés par les événements adduna bi monde bi moo leen dépassé. ñoom c' est des hommes de 1960 c' est des hommes de 1970 ba 80. waaw d' accord mais booboog léegi ñoo ngi fi di yuuxu comme ay seko. te li ñuy wax un élève. la première année FASEC wala deuxième troisième année mën na leen a tout de li ñuy wax ni amul fenn seen tur rek a fi nekk ay Mamadou Lamine Diallo tekki économiste pititi patata ay Decroix nangam ak naam di wax loo xamante ne si amul musul am c'est pas vrai kenn du leen gëm mais sont pas sérieux mais Moussa Sow Euh, dégg nañ li ministre bi wax euh, ci atelier bi nga xamante ni si la ko waxee woon Abdoulaye Daouda Diallo mu wax ka ne Sénégal kees yi vidul wax na ne Sénégal am na xaalis mais bu baax mais man li ma jaaxal Moussa mooy yéen secteur privé bi da ngeen leen a ameel ay milliards yu bëree bari même Sénélec euh, état bi amee na Sénélec xaalis. réew mooy doxe noonu. réew musoo gis réew moo xam ne yorelul kenn dara. c'est impossible dette intérieur ak dette extérieure. réew moo gis am na ko. mais ngeen fay bu ngeen amee kees ba kees dafa fees. mais loolu la ndànk-ndànk. parce que privé yeeg. ñaangam ñoo bokk réew mi di. ñooñ Sénégal lañ dëkk développement Sénégal lañ bëgg état aussi ñoom la ñun la ñeneen lan donc nii la day dem ak i ñëw dem ak i ñëw noonu la ñuy jëflante. partout boo demee États-Unis Japon France fépp c'est toujours comme ça. d'accord maintenant nag. Mhm. man jàpp naa ne réew moo xam ne ñu ne réew mi amul xaalis kon lu tax réew mi di di fay chaque weer fonctionnaire am da eh, xam masse salariale bi ñaata la ils sont pas sérieux li ñuy wax teguñu ko fenn. d'accord léegi euh, jërëjëf mbokk yéen ngi ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité Moussa Sow mi nga xam ne mooy coordonnateur national de la COJER maanaam euh, ndawi euh, APR yi moom moo ko jiite ñu ñëw ci COJER yow bi nga nekkee ci bopp COJER ak léegi yan jéego nga def Moussa ak sa équipe. waaw bi ma ñëwee nag ci bopp COJER man dama ne il faut que ñu booloo d'abord suñu biir. parce que fekk naa fi ay ŋàll yu baree baree bari. ah bu baax ay cogère moins de 35 ans ay cogère avec Mamarem Thiambabu ay cogère moins de 35 ans nouvelle dynamique nangam ak nangam ñeneen ak ñeneen dama ne woon bi ma ñëwee il faut que ñu booloo d'abord nekk benn rang yu jub ñu doog a départ bu ñu nekkee benn am benn unité bi kenn duñu àttan fii. ah ci laa nekk. Mhm. depuis booboo léegi gis ngeen. coow li mën nañ wax ne wàññeeku na. waaw mais rang yi jubagut ba tey. waaw waaw waaw loolu la aduna moom xam nga en matière de jeunesse nag il ne peut pas avoir de voix dissonante tout le monde est d'accord loolu day xumbal sax mbir mi day neexal mbir mi. magie la magie Moussa est-ce que tey département yépp 45 département yépp tey ñépp ànd nañ ka ka yow euh, d'accord nañu ànd ak yow liggéey. aduna ñépp mënuñoo d'accord ànd ak yow man sax bëgguma ko d'ailleurs parce que mënuma ko am toute façon. mais yaa ngi koy jéem. maa ngi koy jéem pour que véritablement ñun ñëpp ñu ànd nekk benn bëggante soppante pour que ñu mën a jëriñante. mais Moussa yow lan nga def ci parti APR ba ñu war laa jox euh, coordonnateur national bu COJER. ah loolu dana ma dana ma difficile di yé yéen a ko war yéen a war a def recherche yooyu ngeen wax ma ko dana ma difficile moo wax ci man. en mille 2008 bi président di fondé parti am ñun ñoo nekkoon ndawam fële ca université fondé li nga xamante ne maire la mouvement des élèves et étudiants républicains. jóge foofu depuis lors ñoo ngi def ay jéego fi ma dëkk fële ca Labgar département Linguère foofu conseiller laa fa conseil municipal laa fa ba pare jiite commission au niveau départemental bi ñuy engagé wu ci à côté du président Macky Sall c'était pas évident il y peu de jeunes même peu même d'adultes on nous comptait à bout de doigts d'accord bari ñu woon léegi la mbir mi neex te loolu c'est très normal dans la vie il faut que nit ñi ñëw ñu massifier le parti ñun ñëpp ñu ànd ci pour que véritablement président de la république mën a liggéey réew mi. Euh, COJER euh, mu nekk benn kuréel boo xamante ni moo ëmb ndaw ñi ni nga ko waxee sànq mooy euh, bu rang yi jubee kenn du leen mën a àttan léegi yow est-ce que lu jëm ci structurer. cogère ba nga xamante ni tey euh, département bu nekk wala commune bu nekk dafay am koo xam ne yow yaa ko fay samp est-ce que loolu yaa ngi ciy dox. maa ngi ciy dox bu baax a baax parce nii sax ci ci tournée lañu nekk. tournée yoo xamante ne dañ ci boole ay activités citoyennes parce que ñun nag président de la république def ñoo yar ci dimbale. citoyen ci dimbale sénégalais yi daf ñoo yar ci li nga xamante du ci politique kese la yar politique benn wàll ci biir liggéey bi ci biir mission bi ñun politique kese kese intéressé wuñu keroog bi ñu ñëwee fii nga xam ne mooy wakaam ci suñu tournée yi l'étape première dañoo ñëw dem def benn set setal bu yaatoo yaatu parce que jàpp nañ ne dañu war a setal suñu dëkk yi setal suñu dëkkuwaay yi setal suñu quartier yi pour ñu mën a dund ci jàmm ak salaam. mais est-ce que sensibilisation boobu COJER ba ngi ciy liggéey. moom ci liggéey bu baax a baax d'ailleurs sax keroog bi ñu fi ñëwee ñëpp mobilisé wu. ñii def politique ak ñi deful politique ak ñépp ñëw ñu ànd set setal canal euh, cité Asecna bi yépp bu ñu bi ñu pare ma ànd ak ñi nga xamante ne véritablement ñoo ngi jàppale président de la république nekkal ñu foofu ca wakaam ñu dem dugg saal waxtaan suñu biir fal benn bureau bi nga xamante ne moo fay représenté COJER biñ fa jógee weekend bi ci topp dañu dem HLM. dajale toutes les forces qui sont là-bas ñii politique ak ñi politiqueul mm, euh, maire mbootaay yeeg tout le monde ñëpp syndicat yeeg benn bokk yaakaar beeg opposition bi ñëpp ñëw. ci set setal bi ci set setal bi ñu ànd ceeg ñoom ci wetu école ma na sal ñu set setal foofu yëpp bi ñu pare ñu dem toog waxtaan ak ndaw ñi fa nekk ñi nga xamante ne ñoo fa nekkal COJER nekkal fa président de la république ñu fexe taxawal leen benn bureau am ku ko jiite. mais est-ce que est-ce que am ngeen ay moyens Moussa. Euh, dañuy rek ñoo ngi sant yàlla nag xam nga mbir mi moom. Euh, euh, lépp lépp daa daa matewul. waa mais xam nga mais ñun xaaruñu ay moyens yu bare pour def suñu liggéey. waa mais Moussa xam nga tey par exemple tey yéen a nga ne dem ngeen HLM euh, H&M Kero mais su ngeen doon dem tey fu mel ni Rebeuss wala Colobane wala feneen ak feneen xanaa askan ba fa nekk bu ñu amul ay jumtukaay yu ñu balee wala yu ñu tonnee mbalit ay brouette ak yooyu xanaa di ngeen leen ko fesee na jëndal xanaa. ah bu baax ñun bu ñuy déplacé wu dañuy yóbbaale matériel boobu yëpp dañ leen koy may sax faf pour que ñoom ñu continuer bale bi xam ne du si jour boobu rek la war a yem li ñu doon gis bi ñu nekkee gone mooy chaque jeudi wala chaque chaque pratiquement benn jour wala ñaari jour la ñuy jël si semaine bi nettoyer quartier bi yépp mais loolu amatul jigéen ñoo doon jóg bale daje ngoon gi trois heures ba pratiquement 6 heures wala 4 heures ba 6 heures bale xam nga loolu dafa baax bu ñu demee nag effectivement matériel bi ñu yóbbu dañ leen koy bàyyee ñu may leen ko pour ñu continuer liggéey bi. d'accord mais est-ce que dugalu leen ci politique musa est-ce que sérieusement yéen ko gère dugalu leen ci politique. non dugaluñ ci politique parce que buñ ci dugaloon politique opposition du ñu fa fekk buñ ci dugaloon politique société du ñu fa fekk buñ ci dugaloon politique ñi nga xamante ne ñoo bokk benn ya benn bokk yaakaar du ñu fa fekk bu buñ ci dugaloon politique ASC e yi du ñu fa fekk buñ ci dugaloon politique ñun kese lay doon. looloo tax nag ñun bugguñu cee dugal politique. parce que réew mi ñun ñoo ko bokk. d'accord dañ ciy xajal ñépp ñu ànd ci liggéey pour que ça soit beaucoup plus efficace. Ah, mais Moussa euh, est-ce que tey COJER ni mu la ko laajee sànq est-ce que yéen a koy structuré yéen. waaw ci lañ nekk sànq wax naa la jaar nañ Wakaam structuré nañ ko. dem nañ HLM structuré nañ après dañuy demaat ci yeneen communes yi structuré bu ñu demee ba structuré Dakar ba pare. doog a génn dugg ci département yi à l'intérieur du Sénégal structuré département yépp bu ko defee uh-huh. bu ko defee booba la ñuy gën a aay ci liggéey bi d'accord mais mais euh, àllarba jiñ génn euh, jigéen ñi bokk ci COJER daje woon nañ ci seen chaise bi mais euh, réunion ba dafa mujj pëccëxoo lan moo ko waraloon. mujjul pëccëxoo de. mujjul pëccëxoo. mais vidéo yi je tiens Moussa. je tiens à préciser man j'étais là man maa leen convoqué woon pour ma recevoir leen. waaw mais vidéo yi ñu gis. waaw vidéo yi benn minute la wala ñaari minute la rek. loolu mënul ñàkk ci ndaje gone. mënul ñàkk nee naa la lool. magie la day safal mbir mi mais looy pëccëxoo lu tuddi. wa wa wa bàyyi ma expliquer leen ni mu demee. bi ñu ñëwee. dama leen recevoir. photo yaa ngi fi ak vidéo yi mën ngeen a gis siège ba dafa fees dell ba mujj jaaxal nit ñi moo lay won ne président de la république kat am na ay ndaw la jeunesse féminine elle est fortement représentée le jour dañoo ñëw ñoom ñépp ñu ne président de la république moom kese la ñuy jàppale du keneen fépp foo xam ne woote na fa pour ñu taxaw ñoom ñoo cay jiitu maa ngi leen di félicité ci wax jooju te président de la république effectivement yëg na loolu te moo ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax te le travail continue bi ñu ñëwee. dama jàllale benn message d'unité benn message fédérateur benn message pour que neleen nañu ànd nekk benn lëngoo liggéey pour jàppale président de la république. bi ñu paree ci ci ci assemblée générale bi ma yëg ci kaw pour recevoir chaque région représentée. parce que jeunesse féminine Sénégal yëpp la ñu woote woon bi ñu ñëwee ma dugg ci biir ci kaw salle de réunion bi di recevoir chaque région bi ma ñëwee ba ci Dakar waa waaye am deux représentantes ñu wax amul problème ñu waxtaan seen biir choisir ñaar waa dakaar département choisir ñaar waa Tëngéej choisir ñaar mais waa Pikine elles avaient du mal a choisir deux personnes seulement pour ñu wax comprendre. problème fële problème mu fële la du Pikine yëpp sax commune Mbao. commune Mbao la ñaari jigéen ñoo fa nekk ñu ne ñoom ñaar ku ci nekk ku nekk ci ñoom ne mooy day jël parole day wax seen problème au niveau de mbaaw la ñu transposé au niveau national au niveau du siège léegi nag bi waa Dakar waxee pare waa Guédiawaye wax pare waa Tëngéej wax pare waa Pikine comme que amuñu consensus elles se sont un peu chamaillées mhm. am kenn ku laal keneen ka affaire bi xaw a jaxasoo tuuti pendant deux trois minutes ca la yem am xam naa ku fa yoroon téléphone am qui euh, n'est pas animé euh, de bonne foi filmer affaire bi lancé ko xam naa certainement noonu la demee du leneen après bi Dakar génnee dama continuer recevoir région yépp ba mu jeex d'accord léegi euh, amul benn problème ba mu jeex tàkk mais malheureusement la presse ne parle jamais du train qui arrive à l'heure à chaque fois bu tardé la ñuy wax te loolu noonu je pense c'est un petit incident par rapport à la réussite que l'Assemblée générale a enregistré. d' accord léegi euh, Moussa Sow yow yaa jiite euh, COJER ndawi APR yi bi nga ñëwee ci bopp COJER ndax fekk nga fi xaalis ci ci kees bi gestion bi. non non fekkuma fi dara wax dëgg yàlla. les caisses en joxuñu ma. kees yëpp dañoo viddoon. non du kees vide xam nga c' est différent. organisation politique. ak li nga peut-être xalaat c' est différent. c'est très différent parce que bi may ñëw fekk na d'ailleurs subvention bi ñu doon jox euh, équipe bi fi nekkoon fekk arrêté nañ ko donc je n'ai je n'ai je pas de chance de trouver <laughs> un sou dans la caisse. kon fekkoo fa dara dara dara non du fekk dara c'est-à-dire bul yaakaar ne dama fa war a fekk dara waruma fekk dara en réalité. lu tax waroo faa fekk dara. waruma fekk dara parce que amatuñu woon subvention amatuñu woon benn ressource. lu tax amu leen ko amatuñu woon benn ressource. ressource yi fan la doon jógee. dañ koo dañ koo arrêté woon. lan tax ñu arrêté woon ko. non parti parti politique nag noonu lay demee bu demee ba si yàgg xam nañ coow li bari woon na ci COJER ndaw ñi di xeex gauche droite bari ay division nangam ak nangam. ah suñu patron décidé arrêté li nga xamante ne moo nekkoon subvention bi du du COJER kese. mu mouvement des étudiants ci la bokkoon ak yeneen mouvement yi yëpp la arrêté woon. mais fu mu ne nii ay subventions yi ngi ñëw. fu mu ne nii tàmbaliwaat nañ ko. pour que nous soyons beaucoup plus efficaces dans l'action. d'accord léegi euh, gis nañ yéen ndaw yi COJER yi comme ni nga ko waxee sànq yéen a ngi defal euh, ay tracts ak ay flyers di ci def réalisation yi président Macky Sall euh, li mu def ci réew mi yéen a koy def pour sensibiliser askan bi pour def seen seen communication ndax da ngeen gis ne ñu baree bari dañuy wax ne dafa am benn manque de communication boo xam ne dafa dafa am. ci biir euh, cadre euh, APR yi du ñu fësal réalisation président moo tax yéen ngeen jóg am taxawaay boobu wala. Euh, du loolu jàpp naa ne cadre yi nga xamante ne Diouf moo leen diriger cadre yi nga xamante ne Diouf moo nekk coordonnateur de la CCR moo ngi def liggéeyam bu baax a baax keroog rek moo ci mujj. def na fi benn ndaje boo xamante ne président de la république moo déplacé wu ñëw fekkee ndaje boobu fële ca King Fahd mu nekk une réussite totale ñoo ngi def seen liggéey depuis que. Mais, mais, le le ministre Diouf Sarr est à la tête des cadres. mais Moussa Diouf Sarr euh, cadre yi moom dañ fee nekkoon di lëmbe noonu amutoon njiit ba fa Thierno Alassane Sall jóge yàggoon na euh, à part nga Ngom fi nekkoon mais euh, président Macky Sall avant élection présidentielle 2012. ñu bari doon nañu wax que ne cadre yi taxawaay bi ñu war a taxaw pour fësal réalisation président Macky Sall manqué woon na. manqué woon na mais commencé waat nañ ko su la conduite. de ki nga xamante ne président de la république moo ko fa teg muy Diouf Sarr donc nañ ci sant yàlla. on dira la même chose à la COJER. avant Moussa Sow di ñëw peut-être danañ wax ne. Euh, pëcc xoo woon na bëri na ay division coow lii gauche droite mais léegi tane na parce que nit ñi je je nit ñaa ngi rafetlu effectivement lii COJER di def parce que c'est des mobilisations. Euh, c'est des mobilisations yoo xamante ne ça sam ça anime le parti ça mobilise et c'est extrêmement important dans un parti politique waaw mais Moussa tamit euh, sa tournée bi baa doo ko yemale Dakar rek wala seen seen flyers yi baa duñ ko yemale dakaar du Ndakaaru rek ñoo ngi partout nag te ñii bandi bandi lu ci mbedd yi nii ay ñoo lànk ñoo leen gën a bandi fuuf ñu sax seen moroom gis nga suñu flyers yi ah. billaahi bis bu génnee ñu xam ne ponkal yi ñëw nañ kon daal ba ngeen euh, occupé terrain bi. bu baax commencé nañ ko sax d'ailleurs occupé nañ terrain bi ñoom ci seen wàllu ba xaw ma ñaata lan est-ce que mot nañ diis sax ma ne damay gis ñuy ñuy dox nii ci mbedd mi rek. motuñu dix personnes te bu ñu wàccee. dañ danañ leen danañ xam ne ponkal yi ñëw nañ te danañ leen suul. mais ñoo lànk def fii ab manifestation bu rëy Colobane euh, ñëpp gis leen ci mbedd mi. man en réalité xaw ma xaw ma lu ñuy lànk. ko yokk courant gi la ñu lan ak Guy Marius Sagna ñu bàyyi ko Guy Marius Sagna nee nañ euh, mi nga xam dañ koo téye ñu jàpp ne Macky Sall daf ko singali ndax lim demoon ci buntu palais waa léegi waa léegi ka yow boo xëyee fii dem buntu palais ngay bëree ak garde rouge yi loolu baaxul sax image suñu image bu réew baaxul. wër ñaxtu ji doon ñaxtu bëriwutoon doon ñaxtu ji. ban ñaxtu. yokk courant bi. mun laqatu ba ñëw ci giri yi téye. gars yi ñëw ne ko bàyyil. bàyyil bàyyil mu ne du bàyyi. nga naan ma sañ-sañ dem buntu pale. déedéet benn sañ-sañ ci république lañ nekk mais yow am nga sañ-sañ jógee fii yow yow musaa dem ba buntu pale. yow borom dem pale kan moo ci république la ñu ne ñoom ñoom waruñu lànk xam lu tax ma ne waruñu lànk. parce que effectivement li ñu eh, def ci courant bi ci monde rural ba la jëm président de la république bi mu ñëwee wax naa leen ne ci ci ci équité sociale la nekk équité territoriale bu fekkente ne euh, bëgg na équité sociale bi egg ci ñi nga xamante ne foofu la war a egg mhm. il fallait am lu ñu leen yóbbante il fallait que am lu ñu am ñoo làng bu ñu taxawee ne ñoom du ñu am man dama jàpp ne monde rural bi dañoo war a fàqee ko kooku ñëw defal ñi bagage dóor leen ba ñu bëgg a dee. jërëjëf euh, Moussa Sow yow yaa nekk coordonnateur national bu COJER léegi euh, ñu laaj la si benn question rek te génn ci mbiru COJER bi euh, tey gis nañ bi fi Thérèse Faye nekkee bëri woon na ñoo xamante ni tey dañ ko doon contesté ñu si mel ni ay maneem baaboo gi demee noonu est-ce que yow Saka am na loolu. sant yàlla amagul loolu mais quand même euh, ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñaan ñu ñaan mm, pour que loolu bañ am. parce que loolu ça ne fragiliser la COJER. te COJER tey jii buñ ko fragiliser président de la république la ñu la ñuy néewal doole. parti bi la ñuy néewal doole nañu ñëw bokk ndey bokk bàyyi waxtaan man je ne pas euh, au centre de la de la vérité toujours. man je veux des discussions je veux des dialogues je veux dialoguer avec les gens je veux de concertations depuis bi ma toogee léegi ci laay ci laa ci laa nekk donc bañuma kenn ànd ak man liggéey liggéey bi nañu ñëw ñu waxtaan diisoo véritablement pour que ñu dimbale président de la république man parfois damay yërëm président moom lépp lu muy def bu fekkante ne nit ñi ànd nañ nekk benn bëggante suñu biir ci biir partie bi wóor na yàlla kenn du ñu àttan ci mim réew danañ ko défendre li mu def ñu fësal ko ba sénégalais yi jëpp gis ko mais bu ñuy xeexante suñu biir di di di iñaanante loolu ça ne fait que du ñu may dara c'est pas en notre faveur ministre yeeg DG yeeg nañu futteeku nañu futteeku dimbale président de la république défendre ko parce que waroo nekk ministre rek ngay naan dépassé nga défendre président de la république fii ku fi défendrewul président de la république euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi yàq yàqal sa bopp yaa ngi nax sa bopp parce que président moo leen fi teg ñoom ñépp mais am na ñoo xam ne duñ duñ leen gis ci télévision yi wala rajo yi ñuy défendre président dañoo war a génn nag défendre président de la république dañ ko war a def ñun de ku laal président de la république t'es mort que tu sois à l'intérieur du parti wala à l'extérieur parti amu leen ci xaaj ak seen amuñu ci xaaj ak seen même bu dee cadre yi nekk biir APR. waaye nañ nekk cadre nañ nekk lu leen neex ku dal ci président wala ku ko ñàkk défendre. ñun danañ ko wax danañ ko génn wax. il faut que gars yi ñu am benn solidarité bi ñu xam ne waajee fi ne président de la moo fi ne kenn newu fii ñu défendre ko jàppale ko bu ñu ko jàppalee suñu bopp lañ jàppale. Mm-hmm. mais bu fekkente ne man kenn bu dalee ci président de la République ñeneen ñi lu tax duñu dal ci kooku. wala dañuy sàmm seen amitié. waaw mais fii amitié amu fi président kese moo fi am. nañu amitié ndo ak président. mais gis nañ Moussa yow bi Moustapha Diakhaté génnee dal nga si kawam mais gis nañ am na ñoo xamante ni tey ay ministre wala ay ancien ministre yoo xam ne doon nañu layaam layaamal mel ni kuy soutenir faa Diakhaté. ñooñu nag dama wax ne eh, eh, eh, defuñu defuñu li nga xamante ne war nañ ko def. dañu war a dal ci Moustapha Diakhaté parce que Moustapha mënul dal ci président ba pare ñu koy seetaan di layam-layami comme ni nga ko waxee di sàmm seen amitié loolu dafa war a dañ dafa war a dakk d'accord fii président moo fi ne ñoom nañu futteeku dal ci ñooñu ah jërëjëf euh, Moussa Sow léegi dialogue national bi ñu bari ñoo ngi wax ne euh, du dem demul ceng dikkul mbaylaar maanaam puusul paasul mbirum per jëm ñoo ngi ko si tudd yu demee noonu yow est-ce que jàpp nga ne beneen bi tamit bokk gis-gis ñoom ñoo ngi sàkku la fay tukkee ñu jëfee ko comme ni ko Macky Sall waxoon lan mooy sa xalaat si dialogue national bi. man jàpp naa ne dialogue national bi dem na ci cëng dikk na mbay laa. Ah. xam nga lu tax ma wax ko <laughs> xam nga lu tax. Mhm. parfois man je me désole. man je suis membre du comité de pilotage dialogue nationale xam naa li fa am. xam naa li fa xew mais boo génnee li ñuy wax ci journaux yi ak li ñuy wax cabet yi. dafa mel ne yàlla ak yaali bokkul ñu dajee. premier jour ba le 14 dañ ne dañu proposer benn réglement intérieur réglement intérieur boo xamante ne euh, peut-être am na ay quelque trucs yoo xam ne war nañ ko cee changer opposition bi yëkkati loxo ne comme que réglement intérieur bi am na loo xamante ne war nañ ko ci changer ñun ñëpp ñu d'accord ci nañu ne travaux yi ñu jàppaat beneen jour entre-temps fekk liir nañu règlement intérieur bi bu baax apporter nañ ci ay modifications noonu lañ def ñu ñëwaat beneen séance fekk ñëpp liir nañ ko jàng nañ ko apporter nañ ci liñ ci war a apporter ñu ñëw ñu lancer le débat les travaux commencé ñuy waxtaan ku nekk joxe sa xalaat bi ku nekk joxe xalaat ba noppi ñu choisir toutes les forces représentées au sein di dialogue fu ci nekk benn nit ñu dajaloo bindaat mbir mi très rapidement ñu may leen une heure deux heures temps ñu dem toog quelque part xaaral leen ba ñu paree bi ñu paree ñu wooñu bi ñu ñëwee ñu liiraat règlement intérieur ñu valider ndee ndoo ko amul opposition amul pouvoir amul majorité amul leneen tout le monde société civile forum civil nangam ak naa ñëpp chef religieux coutumier ñëpp valider affaire bi biñ ko valider ba noppi fekk guddi na ñu jàppaat beneen jour pour ñu samp commission yi commission yi aussi consensuellement lañ ko samp commission yëpp amul béeg bi secrétaire yeeg adjoint président ye vice président yeeg euh, ñoom ñëpp ñu samp leen comme il le faut ñu jël en considération la jeune féminine ñu jël en considération les force vives qui repré qui se sont représentées qui qui se qui qui sont représentées au sein du dialogue national. donc loolu jàpp naa ne c'est une révolution nañu applaudir jàppale li nga xamante ne mooy dialogue national mi jàppale président de la République te félicité ko it. parce que li musu fi am lii dafa baax xam nga lu li nga xamante ne. mooy culture de dialogue suñuy doom su ñuy sët ñoo fii ne bu ñu ñëwee danañ danañ danañ fekk loo xamante ne c'était déjà installé par les générations antérieures waaw mais Moussa est-ce que li tukkee ci dialogue bi baa président dina ko jëfe bu baax président il est sérieux dans ce qu'il fait président caaxaanul ku ko xool xam ne caractère bi mu yor nekkul ci ay caaxaan bu ko neexoon du organiser benn dialogue te dara du ko ci fekk am na euh, majorité pour gouverner mhm. am na effectivement coalition bu dëgër pour gouverner opposition bi kenn kenn ci ñoom jaaxalul président de la république dañoo xam ne dialogue bii buñ ci bokkul it day dem. parce que tout le monde est représenté moo tax ñu ñëw toog di. loo yaakaar bu ñu xamoon ne bu ñu ko boycotté du dem yàlla xam na nañ dañ koy boycotté parce que gis naa fa je ne généralise pas mais gis naa ay nit ñoo xam ne ci opposition bi lañ bokk nekk ay nihiliste des gens qui absolument rien du tout. Parce que leur aujourd'hui n'est pas au tiraillement, leur n'est pas à, euh, au, à la mésentente, l'heure est à l'union pour que suñu réew jëm ci kanam. jërëjëf euh, Moussa Sow euh, xam naa fii la ñuy fas yéene yëkkati jataay bi lan ngay tàggoo. waaw li may tàggoo rek mooy nekk maa ngi encore une fois di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñoo ngi ñu doon déglu. Euh, di wax ne aussi bu wax ji xawee ñagas euh, nañ ma jéggal te xam ne euh, doomu aadama laa motu ma bu wax bi baaxee nag ñu xam ne ci ci yàlla suñu borom la jërëjëf jërëjëf euh, mbokk yi ngeen doon déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi ñu si ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci rajo réew mi FM ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck tey nag euh, ñu invité woon euh, Moussa Sow mi nga xam ne mooy coordonnateur national de la COJER maanaam moo jiitee ndawi APR yi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.